assalamu aleykum mboolo bi maa ngi leen di nuyu ku ci nekk si turam ak santem di leen nuyu yenn tv tv yëpp defe naa ci yenn laay jiitu teg si aussi gars yi nee na ñu ngi woo ñëpp mais il faut mu am ñu ñu cité balaa ñuy sori parce que am nañu garant yoo xam ne bi ñu xalaatee lii ba tey ñu ngi leen di sonal dugg di ribécëg du leen di woo ñu nekk suñu ginnaaw di daw di daan aussi tamit ba lii am daayi maguñu bii lii la lancement la rek aussi mais ku mel ni grand invité wu ni sum production heure bu ne lañ koy zonal grand Abou Ndour Abdou Waxal ak Doudou Ba ak ñeneen ñoo xam ne bari nañu ñëpp mënuñoo teew ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen gën a talal loxo aussi mais si comme ni ko trésorier waxee suñu association bi li ñu tax ñu booloo fii tey mooy pour jot suñu àq ak yelleef si lambu ji te defe naa ne bi bi biñ koy waxee képp kuñ ci waxtaane ànd nañ ci à cent pour cent amaan na nag xëy na day soog a jot pour pour ñu def ko kon nag ñu ñu ngi ciy sant yàlla bu baax gën leen talal loxo di nuyu aussi itam ñu ngi jégalu côté boobu waa CNG de lutte ak seen président parce que bu ñu waxee lamb ñoom la képp kuy dundu lamb aussi wala muy mbër wala muy amateur képp kuy dundu lamb rek bàyyi ñu kenn mais surtout mbër yi képp koo xam ne rek ak noo mën a toll am nga vigne tout simple yaa ngi gis affaire bi defe naa ne amul buñ ko yemale képp ku pare rek incha allah buñ fi jógee président dina liggéey loolu ñu def sa numéro ci biir dina dinañu dina leen wax fi ñuy jaar aussi pour am ay carte membre ak yépp mais li ñu gën a bëgg surtout lamb ji métti na ñaata champion ñoo fi am problème tey ba bàyyi lamb mënul jeex ñaata mbër la ñu toroxal si lamb ji du mujj fenn mënuñu ko wax amuñu fu ñu ko waxee ñu baal ma ci kàddu boobu côté toroxal bi mais daf fee bari Dakar tane na mais boo demee ci àll yi àll yu sori yi defe naa ne li liñ fay dund métti na torop te yaakaar naa ne conséquence bu ñëw si ñun lay dal mais ñeneen ñi fay juum wala erreur yu fay am dañ koy tege à côté te du ñu mën a wax ñun la ñuy sanctionné boo defee sa règlement euh, duñ ko valider côté boobu fi ci ciy existé xam naa mais il faut ñu laase walé ko ci suñu kilifa yi nekk si ñu kanam parce qu'il defe naa ne dangay dem ci lambu sax ñu def la benn mbir du la neex mais da ngay dem defi recours wala yu mel nonu duñ ko valider wala ñu teg ko ñu até ko ci condition xamné xam lay leer né li riposte moy des te bo riposte ñu ne defoon nañu régalement mais dafa bañ lii ak li daan bi dal suñu mbokk yooyu yëpp nag la ñu boole

du compétition boo wax fii même roi des arènes sax ñi ko fi nekk fii ñu ñuy woowee VIP fii la ñu jaar terrain Adrien Senghor bi koo ci gis mu ne la ci mbapat walla yu demee noonu. ak CEDEAO voilà mooy équipe nationale am na am am na am na ci ñoom ñoo xam ne présenté wu nañ mais yaakaar naa ne ñooñu sax ñoo gën a torox si bëre simple parce que kenn kenn kenn kenn euh, dégluwu leen joxuñ leen seen cër maa ngi fàttaliku tuuti rek barke dem bu am na ndaje bu ñu demoon fale suñu papa Amoura Sarr mënuñoo wax côté boobu te nuyuwuñ ko aussi au passage ñaanal ko yàlla wér euh, keroog gis nga fiñ ko teg dinañ ci gërëm suñu grand bale parce que gis nañ ko ñi tase woon pale bari woon nañ trop kilifa yi bari woon nañ su mazaar yëpp ñu toog ñemewuñoo yëngu mais dafa fi fu xataraayu lu ko kenn xamewul rien que rek mon ñu présenté wax li ñu métti au moins te defe naa ne tey ñi fa toogoon tey ñu baal ma ci kàddu bi mais Ambour da cee bokkoon parce que nag dafa liggéey ci lamb loo xam ne nekkatul koo xam ne ci ginnaaw la war a toogee si ci ci ci ci affaire u surtout nag koo xam ne ñu ngi pale si président ak yu mel noonu yu bari quoi moo ñu boole ñu bëgg nag xeex loolu mu deñ bi aussi mbor yi fii feebar wala ñuy gaañu yëpp incha allahu rabbi ñu xool niñ leen di taxawoo ba benn mbor dootu fi am problème mbor bu fi amati problème ñu taxaw gunge la mboor buñ fi jaati doole aussi ñu xam ñu mën a taxawu xeexal la règlement yi ñuy teg aussi arrangé wuñu yëpp defe naa ne dinañu mën a toogati suñu bopp kaasal suñu bopp droit ba ñu jox ñu suñu gédd waa loolu laa ci buggoon laa rewaale su ma amee lu ma fàtte aussi xam naa ne président dina ko mottali bu fekkee ne tam juum naa wala wax ji am lu ci ñagas ñu baal ma ñëpp parce que wax neexul te xam nga aussi dégguñu wolof loolu du ci moon a ñàkk maa ngi gërëm ñëpp nuyu ñëpp asalaamaaleykum